ki nga xamante ni moom mooy Moustapha Ba numéro yi mu amoon ñan ak ñan la doon communiquer ak ñan la mujjee communiquer ak lan la mujjee wax ak ñoom. Mhm. c'est-à-dire mën na ma mën na ma mën na ma nekk mën na nekk kumpa ci man mais nekk kumpa ci. ki mooy mooy enquêteur mënul nekk. parce que enquêteur mënoo ko opposé secret professionnel mënul ne. Mhm. waaye mënoo ko wax ne non lii c'est secret du la ko wax du la amul. Mhm. donc dès l'instant que mu am li ñu tuddee au mandat de réquisition automatiquement même bu doon Sonatel day ñëw ne mu ngi ñii ak ñii la waxal waaw euh, jox euh, les appels s'il y en a mm-hmm. les messages s'il y communication interne externe lépp su dee man mos naa wax ak moom ak lan laa wax ak moom dañ koy teg ci taaw. ñu teg ko ci alors euh, bi loolu amee euh, maître El Hadj Diouf dafa euh, xëy na d'accordul woon ci taxawaay bi nga xam ni moom la procureur am ci génn àdduna kii di Mamadou Moustapha Ba di ñu xamal ni carrément moom Mamadou Moustapha Ba méritowul anam bi nga xam ne moom lañ koy traité alors kii di Jim Mamadou nekk frère ci ci Mamadou Moustapha Ba tey dafa génn ci ci ci RFM di ñu xamal ni carrément. lii di euh, famille bi euh, nangu na décision bi nga xam ni euh, moom la procureur daal di jël lenn rek nañuy def mooy dañuy toog di xaar nu am li nga xam nag moo di autorisation d'inhumation pour mën jébal Mamadou Moustapha Ba ki nga xam ne nag moo di boromam bi maître El Hadj Diouf defee boobu la sorti mu jur li nga xam nag moo di polémique moom aussi nan nga ko mën jàng nan nga jàngatee réaction am en tant que avocat de la famille. waaw xam nga maître je pense que dafay di di avancer ci mhm. gaaw boobu day jurale sa politisation alors que nit du dee ni politiser deewam mhm. moom avocat la kon xam na luy droit xam na lu yoon mhm. euh, moom yoon loolu muy critiquer loolu yoon moo ko wax mhm. yoon tey nit boo ko boo ko gisoon ci mbedd mi nii mu décédé nga gis ne deret jaa ngi tuuru dañ la ne loolu kooku war nit yi ku ko war a jëlee foofu mooy sapeur moo ko war a jëlee foofu de mais sapeur bu paree day woo police policier bu day informer procureur procureur day moo naan tijji leen enquête ci loolu donc loolu c'est tout à fait naturel maanaam sénégalais bu ne wala même gan bu bu bu bokkoon su ñun ñu dund ak moom fii bu bu yàlla defee mu dee ci circonstances yooyu yoon daf ñu defal ko autopsie donc léegi c'est quoi le yoon moo wax loolu léegi procureur bi nga xamante moom mooy l'avocat de la société moom mooy défendre société bi moom moo jàpp ne euh, liñ ko jox ci xibaar waaye moom wóorul ko. mais mhm. lu ñu ko wax daal bu dee dëgg la am na lu ci ñuul. donc mu demandé à ce que ñu xool la moo ci ñuul. Mhm. ci xool boobu noonu ñiy xool bu ñu xoolee mu ne ñu ne ñu ne ko. Mhm. résultat bi nee na am na lu ci ñuul donc lu ci ñuul mooy sëriñ bi euh, Moustapha Ba. Euh, décès bi mu de du décès bu naturel. donc loolu su boobaa mais le procureur en tant que procureur en tant que l'avocat de la société mais lan la mun def lu ëpp loolu. cest à bu ko defulee sax d'ailleurs day faillir à sa mission. Uh-huh. c'est-à-dire que responsabilité bi su boobu en tant procureur dafay des mooy que ne li ko article 66 soit day fekk day mel nii bàyyi na ko fi. Uh-huh. toog seetaan alors que c'est pas son rôle donc li mu bind ci communiqué bi c'est exactement mooy li mu war a def. Uh-huh. daf ko war a def pour moom pour kii pour keneen pour tous les Sénégalais. donc ça c'est pas un léegi ki nga xamante ni moom mooy Jim euh, Momar xam nga kii c'est la euh, jusqu'à en tout ba dimanche balaa muy jot balaa nit ñi di yeewu. Uh-huh. ah euh, c' était justement écrit que euh, parce que man man yoroon yor naa yoroon naa li nga xamante ni euh, moom mooy euh, planning bi. Uh-huh. planning bi nu ñu waxee na nan lay demee man ma ko yor maa ngi dégg. Uh-huh. donc jusqu'à samedi avant dimanche waxoon nañ mbir mi nu muy demee. mooy c'était prévu ñu yóbbu ko. Euh, Nioro ma wax la des hommages seront rendus à monsieur Moustapha Ba ancien ministre des finances de l'économie des finances et du plan conformément au chronogramme ci-après 9h00 jusqu'à 9h50 des officiels et des différentes délégations 10h00 à 10h05 hein, exécution de lime national euh, 10 h à 10h10 prière d'ouverture Euh, dix heures dix à dix heures cinquante cinq prix prise de parole discours de trois minutes pour chaque intervenant et un discours de cinq minutes pour le ministre des finances et du budget allocution du président de la représentant de la famille de Nioro allocution du représentant de la belle famille allocution du représentant de Mac, de monsieur Macky Sall ancien président de la République du de la, la République allocution du président de l'amicale des anciens enfants de troupe allocution du président du conseil national du patronat allocution du représentant de la quatorzième législature allocution de monsieur Cheikh jiba ministre des finances et du budget 11h55 10h55 à 11h 0 minute prière de clôture 11h0 minute départ du cortège funèbre pour Nioro donc man lii xam nga kon di samedi la génn uh-huh. donc jusqu'à samedi ba fajar dimanche ba 8h en nii jàppoon nañ dañ koy denc dañ koy def levée di levée di corps mhm. léegi nag levée du corps boobu message bi li mooy chronogramme bi am na mhm. beneen message message bi c'est quoi autopsie terminée lañ bind mhm. levée du corps confirmée donc ñu ne rendez-vous donc donné à 9 heures conformément à ça donc kii wax ki la jox information ci RFM bi moom samedi boobu si guddi balaa dimanche 8 lii la jàpp mooy day am mm-hmm. te pour wax la ne ji mën li jamono ji nga xamante ni nit yaa ngi ci hôpital militaire bu Wakam di xaar pour lever levée du corps bi mm-hmm. am na ñeneen sénégalais yoo xamante ne jo jóg jël nañoo seen yoon mm-hmm. pour dem Nioro pour jàpp ne fa lay mbir mi di xewee parce que jox nañ leen foofu lañ koy denc donc am na ñoo xam ne balaa ñuy am information boobu di nga gis ko teel a yeewu wala teel a dem malheureusement après 11 heures 10 heures ci la ñu ne finalement du mun nekk lu tax du mun nekk mooy mbir mi procureur nee na euh, def na autopsie mais autopsie bi moom euh, xelam daf ci daf ci ñaawoon. Uh-huh. waaye am na lu firndeel ne en tout cas résultat bi mooy dee bi lu naturel. Uh-huh. donc loolu bu amee. mooy première expertise expérience bi nga def mais tu es nga def une deuxième uh-huh. jusqu'à même mun a def une troisième maintenant quand tu auras fini avec euh, l'autopsie di corps mais doyoo ko dara nga koy joxe uh-huh. léegi moo tax léegi cette famille là c'est-à-dire d'accord euh, elle doit, elle conforme ak li procureur wax mais je dis uh-huh. procureur moom bu waxee dara boo ci conformé loolu mooy am soo ko conformé wul loolu mooy am tey moom rek moo am sañ-sañ képp ko ko loolu xam nga lu mu tudd. Uh-huh. Euh, profanation de tombe képp ku ko def ci Sénégal laa wax. Uh-huh. même bu ne président boobu la ko sant nga def ko délit la profanation de tombe. Uh-huh. procureur rek moo am sañ-sañ ñi dem fii mu ne dëkk nangam. dem leen ngeen sulli néew boobu moom rek moo ko sañ. ci Sénégal fii moom kese moo ko sañ. kon moom kese moo sañ ne aussi sa néew bi doo ko suul tànk pare wu ma. kon kay loolu je dis bien il faut que ñu ku ne ñu jox sa cër. léegi kooku nee na am naa renseignement moo tax mënuñ koo suul kooku da ngay nangu rek léegi bu paree. Uh-huh. man góob ma ne koor bi dina def ci moom une semaine koo ma uh-huh. bu paree dina la woo nga ñëw jël yóbbu après ñu ñaanal ko euh, comme ça moom bu dee enquête lay continuer mu topp ko. lu moo ci solo exactement parce que même dee bu bu am sikki sàkk kay. Uh-huh. intérêt ñëpp la pour mu ñu leer. vraiment su ma jumulee. alors euh, Thion danuy ñëw ci euh, tukki bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye euh, def na ko fële ca arab Saoudite ginnaaw bu mu demee ci li nga xam ne nag moo di ndajale aussi.